parce que boo seetloo Pape mag ñi. Mhm. dañu fonk ñàmb bu ñorul xaw ma na sell wax wala déet. waaw dañ koy yëy ñu bëri am na ñoo xam ñàmb bu ñor rek kii wuñ bu ñorul bi yëy rek dañuy yëy su bëri baax na parce que am na am na euh, na ñuy wax ni baax na ci wàllu ngóora. waaw loolu ci question yoo bëggoon laaj la bokk. parce que bu naa laaj nag ba xam c'est confirmé. wala waaw man nag mënu ma ci confirmé. voilà loolu da koy dégg ñàmb bu ñorul am ñorul gerte gu ñorul. la ngoy dégg loolu waaw maam mu ñorul bax na ci wala ñi ñi am problème carte de sëy mais tamit am na benn wax ni mo moom bi ñu nekkee mhm. daan gëstu parce que man xam yi xam-xam yi dama ci yag gëstu depuis xalé depuis oh, primaire. Mhm. ma ngi fàttali ko amoon nañ benn benn secret bu ñu joxoon. Mhm. ñu baal ma nag ñu baal ma nag parce que jàngale la daal. naa ni kàddu yi dina xaw a kii tuuti. parce que am na benn secret bu ñu wax ni boo fekkee da nga bëgg sa sàkkare yokk. nga xool ni nga bëgg mu toll ko nga wut ñaan bu toll noonu Mm, di ko lekk. natt ko eh, natt ko ci maanaam boo jëlee ñaam boo xam ne da nga bëgg mu toll nii. Mm-hmm. nga natt ci saakara. dem mm-hmm. toll nga dagg ko noonu. exemple mm-hmm. léegi da nga koy xool yi. day eh, xool li ñaam bi. te boo xoolee nag am na looy bind ci kaw. Mm, am na alxuraan ay aaya yoo xam ne. ci kaw ñaam bi nga koy bind. waaw nga yéey ko noonu. Ah, bind ko ci ñaam bi ah ni nga bëgg mu toll nga ñaam bi bu toll si ay aaya. waaw yéey ko yéey ko. Ah, bu ko defee sàkkar bi dina dina dem ba toll noonu. ba toll noonu. Mhm. wala su fekkee mënoo ko yéeñ mhm. soo ci bindee aay yooyu nga defaat ci kii bi mhm. xolit bi parce que bu koy xolit da nga koy mel ni koy fulli defaat ko ci ruur ko ci taal ba mu ñor noonu nga nga ba mu lekk mu ñor bu dee mënoo yéey bu ñor waaw nga lekk yooyu moom amoon nañ ci ay xam-xam depuis bi ñu nekkee xale mais essayé ko nag ba xam kii na am déet waaw dañ dañ ko daan waxtaan yi ñu daan waxtaane ci daara ji ci daara ji xale mais yooyu est que parce que ay temps dama gisoon ay vidéo ci YouTube bi mooy circulé lu bari benn village boo xam dafa benn maire bu fa dëkk. boo ñëwee comme noonu benn bant la lay jox. Mhm. ay bant yu bari la nga tànn bi nga bëgg ni mhm. mhm. euh, xalaat loolu est-ce que nekkul danger. seen nit ñi tamit est-ce que. xam naa tam Sénégal éducation sexuelle dafay dese am. bu fi amoon dëgg nit ñi dañ xam ni awra jarul yokkul. waaw xëy na peut-être euh, nit ñi éducation seen tabu la ñu bari dañ koy ruus a waxtaanee. waaw waaw dañ a waxtaanee waaw day pour mu xaw a am nit ñi généw day xaw a yomb. waaw pourtant nag. voilà waaye. Mhm. waaye si si wàllum awra ak góor gi du munti mel. Mhm. maanaam bu fekkee nii maanaam dem na ba war a jote ak soxnaam. yaramam am am na fu muy egg dina mën a satisfaire soxna soxlawul. Mhm. muy jël di def awra bu toll comme ñàmbeeg bu toll comme bant. je mbir yi newul fu newul ci awra bu ko. Euh, euh, voilà. ci façon de faire la de façon de faire ci uh-huh. defin bi la ne. Uh-huh. mais nekul ci kay bi. ok ci defin bi la. Uh-huh. lolou tam xam ko baax na. baax na waaw effectivement li nga wax ni euh eh, bi may def 6e secondaire def naa. am ma naa gis livre mel non bo xam ci affaire sexe rek. waaw lay mais da ngay gis ne pap li nga wax. mom da ci biir livre bi sax. ci don def ay dessin manam tay da ngay gis ko xamni dafa jawaram day tëdd ni moom mu woon ginnaaw soxla si. waaw pour wane ni li mu yor dafa tuuti. waaw mu am kersa mu am kersa. <laughs> mais après ci livre bi. Ah. man parfois yenn saa dina am client yu ma woo dama leen di expliquer lu mel noonu. waaw bien sûr baax na ci nag. waaw ah, parce que. Hmm. mooy li nga wax affaire sexe. waroon nañu ko di mën di jàngale nit ñi di ko xam. waaw malheureusement. mais malheureusement xam nga Pape gis yàlla ma yàlla baal ko amee boo gisee xale yu bëri di ëmb. Hmm. wala xale yu góor yu bëri di ëmbal. Hmm. que duñ ko waxtaan seen parents ah, ñu bëgg a découvrir waaw ah, kay Sénégal xam amuñu amuñu habitude culture boobu amuñu ko moom amuñu culture léegi bu ko defee nag loolu day day indi benn barrage hmm. léegi barrage boobu nag mooy indi xale bi def leneen ah, parce que lu mu war a xam la waaw kay amul kenn ku koy leeral muy hmm. làmbatu di dem di hmm. làmbatu di loolu baaxul yaa xëy te boo ko doon waxtaane tamit sunu Sénégal ñu am fuñ la classé. Ah, waaw <laughs> boo koy waxtaanee def ay vidéo ci baax ni si bu yàgg ñu ne ab saay saay la. wala kàcc fekk na yàlla xam na ni nit ñi dañ kaa war a xam. seen dund la bokk. waaw dañ koo war a xam war a xam. Hmm. parce que foofu am na ci livre bi da lay expliqué leen ah. Hmm. góor ki lu mu yor. Hmm. sextam lu mu tuuti tuuti. mën na satisfaire. waaw vraiment mais nag il faut nga xam ko. il parce que nee na day day développé parce que am yenn saa nit woo ma ko ni man amoo pomade bi ñu ngandal ak yooyu ma ne ko non yooyu moom. dama koy expliquer su ma ko expliquer dina comprendre ma ne ko sa bos lu mu ndaw ndaw. Mhm. bu ñëwee ci ku jigéen ki. Mhm. dina lu mun a satisfaire. waaw ah, dëgg la bu ndaw ku jigéen ki ngay sëqal. Mhm. xàmmeewul ki yor bu ndaw ak bu mag. waaw mit la rek. waaw parce que parce que moom li mu yor muy vagin mooy sex ku jigéen ki. général genre élastique la. day day adapté wu wu. Mhm. léegi nag ku góor ki bu sàkkaraam nu mu toll moom noonu lay jël day adapté wu day adapté wu li nga wax leer na nañ comprendre nga léegi bu ko defee nag genre la léegi moom bu ku góor ki sexe am ñëwee mhm. nu mu toll rek boom boosam boobu boobu ku jigéen ki boobu noonu lay jël voilà waaw léegi nag ñu bëri nag xamee xam loolu lañ doon xam nag waaw kay nekkul nekkul loo xam dafa fixe toll neen rek waaw nga ñëw yow nga ñëw fa dugg fa maanaam euh, yëmbax fa wala nga nga yaatu fa non non day adapté wu ci ci ci nit li mel li nga wax ni mooy téere bu wér bi non la demee tam yooyu mais mënoo koo jàngale parce que Sénégal yoo xam ne am que tey eh, am na am na benn am naa benn livre boo xam ne mi ngi wane nit ki pour mu bañ a li tax jigéen du am doom exemple mhm. mu génne ci cent points yoo xam ne mën mhm. na tax nit du am doom loolu cent mhm. points yoo xam ne mën na tax nit du am doom waaw xam naa ndax tey xaw ma ndax dañ ko mën a def vidéo sax parce que dafa comme li nga wax rek yooyu dafa naqar a taar yooyu xam naa pour ñu bañ a génn sujet bi daal en li ñu nah. wax ni entre parenthèse mais ñu xam ni maanaam yokk awar ma amul benn efficacité efficacité waaw te sax nag li naturel yàlla defal la ko nit ki mën na dem di koy yokki jële ci feebar bu garaaw wala nga dem ba bëgg mu toll na mu tolloon bu njëkk mu lànk ne du dellu ginnaaw waaw nekk di la indil ay jafe-jafe waaw ñoon tam ñu ñu ñu ñu ñu xam ko baax loolu da ciy baax parfois sax xam nga pap man damay faral di wax ne ku mënta yokk. Mhm. nit. Mhm. maanaam taayu nit. Ah, waaw koy def mu gën a gudd. waaw mënoo ko. waaw est-ce que mën nga yokk sax. Ah, na da kon kay ay luxus am na fa. waaw c'est wala mbir moo la. waaw ah c'est pas naturel. <laughs> waaw yow taay taay nit ki mm. ah, ñi loolu lañ bëgg. ay fi mu ne vidéo bi su ma ne woon dama ko yokk nangam nangam léegi mu fees. waaw waaw waaw c'est vrai c'est vrai. mais cest à nit ñi foog ñu leen di yee. waaw di wax loo xamante ni mooy te mën na indi ay effets secondaires aussi. ñi am ñi am ay sexe yoo xam dafa ndaw. bu ñu xamoon ne loolu moo ko am sexe ñoo yem. ñoo yem duñ ci yokk mais xamuñu ko. <laughs> xamuñu ko comme ne nit mën na benn jigéen mën na am jëkkër wala far wala dara ko saboté ne ko sa nangamu ndaw bi kooku gis si bopp gis affaire bi dafay naqari. Mm. parce que mën na jàpp ne loolu maanaam euh, faiblesse la ci moom. Mm-hmm. fekk na amul benn importance. Mm-hmm. <laughs> effectivement malheureusement. Mm-hmm. kon xam <laughs>